tatbiix yi boobu nga xamante ni moo sooboon sëriñ bi ci mu daan sax faral di tuxu euh, lu bëree bëri ngir rawale njaboot gi mooy tund lu bëree bëri ci jaxasoo yi ak xumbeelu àddina yi euh, hajartu min duriya wal buldaani li xidmatil muxtaari lil jinaani kon mu mel ni ki sëñ euh, fàllu bu Bousso Tamba ni ñu ko ko waxee xam naa ne buñ ci gënoon na xuus mën naa gën a yaatu lool ci tarbiya bi nga xamante ni sëriñ bi daan na ko sàlloo daan yar ak tàggat ndaw ñi rawatina génération yooyu nga xamante ni ay génération génération la yu dul jeex ñooña ba léegi ñoom itam ñi ngi defaree mu mel ni ki itam euh, mënuñoo ñàkk a waxtaane nag euh, maanaam différence bi nga xam ne am na ci li nuru ak soppiku jamono xëy na mën nañ ko tuddee noonu ba tax léegi mu mel ni ki ñu bëri fatte fàtte cëslaay yi nga xam ne moom la sëriñ bi fondee woon euh, yoonam bi ba tax taasub di faral di am yenn saa yi te sëriñ bi ku ku ku siboon lu mel noonu la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tere woon taasub laysa minna man daa ila al asabiya Euh, sëriñ bi woote woo ak mbokk ñu ñëw ci tomb boobu sëñ Fallou sëñ Touba ginnaaw bi mu nekkee mbokkum ñëpp di ab jullit mu woote waat nag bokkoo ak ñoom rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooy ñooy euh, ñoom la seq ak euh, l'islam bi di turux asufiya woote ki nga xam ne woote woon na ko jàmm ak bon booloo doon benn. defar mi ngi tàmbulee ci ñi war a ànd ànd ñi war a booloo booloo te ñoo ngi dara jiituwu ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xeet wi xeet soo ko waxee yaa ngi tàmbalee ci borom xam-xam yeeg jaam ak ak ak maanaam kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk yoon wi kilifa diine yi ba ci seen i njaboot moo tax Cheikhul Khadim loolu nekkoon da loolu da ko boole woon ci mission moom woote jëme ci mbokkoo da ko boole woon ci ab mission moo tax bi mu jógee rek bi mu jógee rek booy jàng xasida yi mu njëkk taalif sax loolu da ciy feeñ waaw moo xam xasida yi nga xam ne ci tubaab yu njëkk ji la ko taalifee comme lu mel ne Matlabul Fawzayni nga xam ne ñu moom moom moom wax làkkub Tuuba diwaanu saadatil muridin bi nga xam ne xasida yu bëree bëri al raiya al mimiya al taiya al nuniya ah boo ko doon topp yu bëri yooyu mi ngi ci biir da nga da ngay gis su suy wax day bàyyi xel ne moom daf fee nekkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ko fi nekkal sallallahu alayhi wa sallam kon yaa war a uuf ñëpp yaa war a jabooti ñëpp loolu liñ doon wax léegi ci wàllu yar bi ni mu ko théorisé boole ko pratique bi noonu it woote bi mu doon woote jëmi ci mbokkoo ak sori par parloo noonu la ko théoriser ba noppi pratique ko boo tey jii wax naa ko boo boo doon jàng xasida yi da nga ci fekk lu dul jeex ci ay ci ay waxam yoo xam ne day firndeel ne moom mii ku nangoo woon a bokkoo ak jullit ñi mbokkook lislaam gi la rawatina nag ñi nga xam ne ñoo di eh, dégg nga kilifa yi diine yi nga xam ne dafa jamonoonte ak ñoom mi ngi tàmbalee rek ci <clears throat> bi mu laataan taxawal yoon wi rek. ku xam na ne fëgg na ay bunt fëgg na ay bunt bunti gaa yu baax ba ci bi muy taxawal sax mi ngi ci fëgg bunt yooyu ndax taxawal na yoon wi ci asas ci li gën a siiw asas ba ay sas soo ko xoolee fukki at la sëñ Cheikh Abdou Lahad te biir fukki at yooyu yëpp fekk na yoon yoon waa ngi dox mi ngi seexal na ñi muy seexal mi mi mi ngi defar ay nit te teewul mi ngi askanoo ci ay këri diine rawatina alqaadiriya ba ba yenn gëstu yi ñi gëstu sax ñenn ñi sax jàpp sëñ bi bi muy wootee yoon murit booba dafa fekk mu nekk ci ak tariqal xaadiriyya bañ naan waaw kon kon ñi àndoon ak moom kon ñoom lu ñu doon waaye sëñ moom ku ne xam ne leneen la ndax moom ndigal la jot ndigalul xaas ngir defar nit ak dégg nga yewenal aw xeet kon fëgg googu mu doon fëgg bunt yi mi ngi ciy jàngale waale ne man mii kat damaa ñëw ngir jaboote ñëpp damaa ñëw ngir woo ñëpp ñu ñëw ci li nga xam ne mooy l'essentiel bi te mooy li alquran santaane waatasimoo bi xablillahi jamian wala tafarraqu mooy na ngeen mooy ci buumug yàlla gi ñu ne mooy alquran ñu ne mooy sunna ñu ne mooy lislaam yëpp mën na koo doon ndax yëpp benn rek la ay ay tur la yu wute yuy tegtale benn tur te bu leen tàqali ko kon foofa la tàmbalee boo demee ci téere yim taalif diggante yooyu dañ ci fekk foo xam ne day wax ne Cheikh Abdul Xaadir Jilaani mooy sama sëriñ di ko di jaay di jaayanteeg moom sax ci ni ab murid di jaayanteeku sëriñam ha innani l yowma mubaayiun laka wa xaadiman laa taxrimani fadlaka loolu jiitu na ay sas tuuti waaye ci ay sas nag ci la demee jot nag gise sallallahu alayhi wa sallam gise boo xam ne nag mayetu ko muy wan sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ko woon ginnaaw sax waaye ci waxin mu koy woon ginnaaw nag daan day dem di jébbalu ci keneen wala muy jaayante keneen loolu moo loolu mooy amul mubaayaa muy amu ay session boobu nga xam ne ci la waxee ne ha innani l yawma mubayi'un laka euh, euh, euh, dégg nga loolu sax la waxoon ci Cheikh Abdou Khadre Jilani mooy ubayi'u l yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa maa ngi jaayanteeg tey jii nag maa ngi jaayanteeg sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy Moustapha nag ci xidma laay jaayanteeg moom waaw daal wax ne daliltu aabidan xadiman lir rasul min aami aysasin ila aami rahil li ko li ko ay sasin ba këru ma fiy jógee xadimu rasulillahi laay doon waaye abdullahi lay doon kon woote woote loolu lépp waaye teewul nag teewul nag mu mu xam ne kat lam nekkoon démb ak barki démb ba tey da koy gën a dund da koy gën a yeesal te mooy woo nit ñi ci ñu ñu ànd nekk benn mu daal di nekkoon ña nga xam ne bi ma àgg ak ak seegul fii ci ñooñu laa jaaroon ñooñu kat danaa leen fonk danaa leen warmaal ngir jàngal ñu ñun ñii ñëw ëllëg ne waruñoo xeeb kenn waruñoo parparloo ci tariqa waru waruñoo woyofalal kenn aw dégg nga maanaam tarixaam wala ab sëriñam ba tax mu ne machaayix yi sayiduna al jilaani wa shaadaliyu maahu tijaani samay sëriñ ndax jaar naa ci ñoom jaar naa ci seen i wérd jaar naa ci seen tarixa mooy ñu baax ñii di ñetti xutbu yii yi gën a siiw suñu gox bii di cheikh abdul xaadir jaylaani mi nga xam ne mooy sëriñu xaadir yi cheikh ahmadou tijaani abul abbas mi nga xam ne mooy sëriñu tijaani yëpp Ah, ki nga xam ne mooy abul xasan achadali mi nga xam ne chadali mi nga xam ne eh, moom itam ku ne xam ne ne am na fii Sénégal am Mauritanie am Algérie am Tunisie ak ci yeneen dëkk yu bari moom ñooñu ñooy samay sëriñ daal di wëlbatiku ne bu dee ci wàllu maanaam ngirum fiq muy muy wàllu jaamu yàlla ci sunna képp koo ci xam ne ku kuñ ci xam la di ko roy jàppe naa la ngay sama imaam jàppe naa la ngay sama royukaay a'immati fil fiqhi malikul ali wa shafii wal xanafi wal xanbali kon kooku wootewul par parloo su ko neexoon mu ne am naa sama yëfi bopp ah waaye gis nga baatu murid yi wax nga ko sànq ci tàmbali bi rek day day firnde day firi lépp mooy kon moom ñëpp la woo ñëpp la fi nekkal moo tax yaa ahla barri yaa ahla barri la waxoon yaa ahla baxri yaa ahla barri wala yaa wala boo ci wax yaa ahla barri yaa boo neexee njëkkee baxr wala wala dégg barr onjuli barri baxri saxaay gis nga foofu maanaam jinaas bi eh, baatu baxri bi ñëw na ñaari yoon ñaat baatu barri bi ñëw ñaari yoon